ku ne bernde ne teral say gan kuy teral say gan ne ay ndab yu am amaanaa mën def lool te ànd ak qualité ba na bu leen kenn naxati dama ni lu jekk yanj te ànd ak qualité feeñ dong nga ko mën a amee mujj KBSB ak GTI lii di ay teg la bool yu sell te rafet ay plateau yakkukaay yu taaru ay mbana ak ay booli dama ni yegg ci biir ay plat en yu nice dëgër këcc dis lool te ànd ak design ay thermos café dale ko ci 1 litre ba ci 16 litres ay plateau mélamine ay kudu ay torchon ay nappe de table ba si ay fourchette dolli si ay service ndekki ba ci lépp luy électroménager waaye itam am nañu ay glacières yu mag ak yu ndaw ak yu verre à eau ak yu boisson yépp ngi leen di xaar ci biir yéen ñi nga xamante ni yéenee berndeel di jaar ci yoon yi fàttewu ñu leen muk ndaxte am nañu ay barquette ay tas à jeter ay gobelet à jus ay papier film ay papier aluminium ba si mouchoir ah bernde nag dafay ànd ak cet te loolu nag GTI moo si mën ba tax na indi na leen ay raxasukaayu loxo ay paan ay siwo ay poubelle ay defukaayu ndox ay satala njàpp yu mucc ayib te amu ci lenn lu leen di lor ci seen wér-gu-yaram ndax ca qualité ba la am nañu chaise yu mag pour mag yu relax ak chaise yu ndaw pour xale yi ak yu mën a dalal gan yi ma wax yépp nag ku ci bëgg am gaawal gaaw dem ci magasin KBSB yi ma leen di limal KBSB Touba Mbédum 28 ca marché Ocass tournalu auto Touba Mbàkke yi ginnaaw kër Serigne Mahmadan Mbàkke di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci numéro de téléphone bi 76 644 16 24 am na itam ci wetu ora banque bi kër Serigne Modou Lo Ngaabu di nga fa fekk Cheikh Abdou ci numéro de téléphone bi 77 373 31 99 wala nga dem ca garage bu ndaw jàkkaarloog garage Guédé di nga fa fekk Jili borom Bagdad ci numéro de téléphone bi 76 644 16 25 bu fekkente ni yaa ngi Jurbel demal ca marché Ndoumbé Diop jàkkaarloog quincaillerie Serigne Baba Thiam di nga fa fekk naa Diop ci téléphone bi 76 644 boo àndee Kër Bamba sunu boutique groupe Touba Industrie kenn du la mën ci bernde bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin mudabbiri alumuuri walxalaaiqi ajmain wa huwa alqaa'ilu fi muxkami tanzilihi allahu aclamu xaytu yajcalu risaalaatihi wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin safwati bani adnan wa ala alihi ahli alihsaan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 di njiital réew mi président de la république du Sénégal sëriñ bi nee na mu ngi lay nuyu jàmm ci bis bu tedd bi ñuy waajal nga ñëw fi te nga baaxoo ko def ak mu jot di nuyu itam mboolem délégation bi nga àndal bépp te bu ci tuddee soxna Marième Faye Sall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 bi nga xam ne waxoon na ne bu dem tukkeem bu tedd boobu bii ñëpp danañ dem sawara wala ayaasu billahi taala ndax nee na bu déwutoon ñëpp danañ def li ñuy li ñuy tuddee tanasur te mu neen law tanasartu la daxaltu naara wala ayaasu billahi taala man sama boobu sax law tanasartu la daxaltu naara tukki boobu yi nag mooy bis bii nga xam ne natt yu diis lañ ko jëdaa teg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 nee mënees na cee liggéey tey sëñ ko fa nee mënees na cee liggéey tey tey nee ci sa ndigal nag dëgg la nee ñu de la santé. salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa